daal wax dëgg yàlla euh, bu ma sa yoon mu yàgg waaye mu boolewaat cana ba ci biir biir yëf yi rek ñun ñii mu jaboote xam nañu niwoom kilifa gu jafe la kilifa gu jafe la ndax woyof na am na njariñ am na xam-xam mën naa muñ ca lu lu problème rëy rëy dal ci njabootam otoom lay taal dem lijjanti ko leer nañ barki démb rek Pape Gueye dañoo jooyloo dañoo ñëw toog di waxtaan mu ni bàyyi seex de fee ma ko fekk mu toog dañ ma fi mu ne de fii ma fii ma toog nii noo ko waxee doon Pape Gueye. mbir mu rëy laa fi xaar. ma xam nga moo xam ne borom daa ñu ñëw rek ma jóg. ma jóg rek la xoolal xoolal boobu yéene rek. ak boobu pas-pas. kilifa dina ko am dama ne ba ma koy wax. Mhm. maanaam dalal sama xel rek. waaw moo tax mu yëkkati loolu. waaw wax ma ne ma maa ngi lay jongul. kilifa gi ñu am xam nañ mooy kan. duñu ko fontoo duñu ko duñu ko foyee ñu ko woyofal ca képp ku koy woyofal koo mën a doon safatoo ñu dara waaw ca lii rek la doon ci maam Amari Ndaak doon ko ci maam taal maam Taala Sekk jamono yu fi nekk amul génn kilifa gu fi nekk goo xam ne àgg nga ko fii waaw ku amoon personnalité ku amoon dignité ku ku xamoon boppam la woon sëñ Ibrahima Sekk noonu ñëpp noonu ca Thiénaba dafa am lu fi ne loo xam ne xam ko dafa baax parce que boo ko xamee danga nga ciy jariñu boo ko xamul nag mën nga cee yàqule nañ sol suñu dàll wër kilifa kilifa diine ñi nga xam ne tey réew mi bu doon ah, ab seng la wala mu néeg la ñoom yooyu jën yi ñu expliquer leen li nga xam ne moom la président de la république namm ci réforme yooyu ak fi mu ko jaare bañ egsi fii tey loolu moo doon tànk yi moo taxan tey ñu ñëw ci euh, xalif général de Tidiane fii ci Thiénaba sëriñ Cheikh Tidiane Seck expliquer ko réforme yi ah alhamdulilahi rabil alamina mu am ci dégg-dégg gu mat sëkk ñaanal ñu ñaanal président de la république yàlla defal ko ndam ci li nga xam ne moom lay jublu muy référendum bi ñuy jëm le vingt le vingt mars. te loolu bu ko aussi bu ko waxee ñu man koo gëm parce que président bi muy campagne ñëw na fii sëñ bi ñaanal ko mu dem am ndam kon ñun ñu fi ñëwaatee tey explique ko réforme yi sàkku ñaan. mu ñaanal ñu am nañ yaakaar na kon incha allahu rabbi bi 20 mars dinañ am ndam ci référendum bi te président dina am ndam oui dina gagné te loolu moom am nañ ci yaakaar bu baax a baax a baax a baax. ndax tukki gi la meeku fii rek la ci yem. tukki euh, gu du yem fii dañu fas yéene euh, wër kilifa yëpp bu ñu jógee fii ñu ngi dem Thiès kër sëñ Saliou Touré kër sëñ Abou Dia kër sëñ fàllu yooyu yëpp nañ fa dem sëñ Xaadim Lo Gaydel yooyu yëpp incha allahu rabbi bëgg nañ balaa référendum bi ñoom ñëpp ñu wër leen expliquer leen parce que xëy na nit ñi ni ñuy waxee ak yëfi ni mu tëggee euh, wuute na ba tax na day lay baax ñu ñu dem expliquer leen yëfi ni mu tëddee sàkku ci ñoom ñaan nag parce que ñoom ñoo yor baatunu réew mi am naa yaakaar ne bu ñu ñaanalee li ñu bëgg nañ ko am surtout fii ci département Thiès bi nga xam ne dañoo bëgg incha allahu rabbi le 20 mars euh, ñëpp woote wiiw réforme référendum mën a jàll parce que buñ gañee fépp te gañoo ñu Thiès aussi ñu responsable Thiès yi loolu du neex ci moo tax nag bëgg nañ gañe département de Thiès incha allah fexe ba ñëpp wote fexe ba aussi ñi ëpp ci askan wi wote wote wiiw lii ni yaakaar naa ab tàmbali rek la maanaam Maysa dafay def benn dafa ouverture la def léegi ñun incha allah au niveau local au niveau communal ñun ñoo koy àggale incha allah dinañ dugg ci fépp fu askan wi nekk fépp fu zone nekk sensibiliser la waxtaan ceeg yow leeral sa ba ba nga xam parce que jàpp naa ne askan wi bu ñu xamee incha allah dinañ xam ni lii ñu leen di indil lu askan wi la loolu incha allah dinañ ci ay débat def ci ay conférence def ay porte à porte incha ñëpp ñëpp xam ni li ñu leen indil lu lu baax la ñu mëna a wote wii le 20 mars inshallah fi au niveau de Thiénaba ta yaakaar naa noonu lañ ko def tam au niveau du département yëpp dinañ ànd yéen yi askan yi parce que politiciens yi bëggu ñu japp ñu en otage duñu jël ben point yi duñu ko duñu ko duñu ko consommer lo par la force ta yenen point yi nekk fi nga xam ne muy point yo xam ne yu am solo la kon yaakaar naa lu askan yi dafa jot ñu xam ko lu may nit yalla di defal politicien defaluma ko sam baa ni poto dama tuddu ay tour ñu may dimbalé mais dama bëgg na ñëpp nekk jamm xool ubbi buntu yi ubbi lépp jege population bi ñu bàyyi xale yi dugg ci kër yi ñu yee nit ñi moo gën suba Thiès. ndax biraan boobu moom wax sa wax mu ne ma dama bëgg nga xamante ak moom bu ñëwee nga xamante ak moom ndax moom day jàppale président man nag képp période yi ñu toll képp kuy jàppale président bu ñëwee ci man dinaa teg ci yi wóor ma ne jàppale leen ndax fi mu toll fu ñu toll nii na ñëpp jóg taxaw na ñëpp loolu moom loolu amoon li ma ciy wax su dengé ngén balma bu jubé ngén balma xalé yi nak nga andal aussi ñom lañ koy sant ndax biran, Assane bay ak Ibou Diouf wa ñom ci li ñu dox mo neex yalla wa nañ ci dox lool la fi na yalla def na dekk bi man ñepp sama xarit lañ awma fi non awma fi kumay ki, ku fi ñew rek dañ nan demal séti Omar Dem xamna na bi min nañu séq naa ñepp jamm nak luma yene nit ki bu bon yalla na kopp sama kaw ñepp la yene jamm ñepp amul kuma ma yéene lu bon suma sañon nak mbeur mi ma andal yalla defal ko jam dañuy wax alaykum rek di jital ci nuyo bi sunu taw mam sunu wéjur Cerno Abuja muy seigne Ibrahima di la wax ni ñu ngi and ak euh, Meissa Diouf Meissa Diouf nek conseil départemental élu ci au niveau du département yàlla dogalit ba Macky Sall jógee ba tey moom la yàlla dogal mu jiite ndaw ñi ci département de Thiès di ko doxal doxal bu rafet doxal bu ànd ak Pastef ak yaatal loolu moo waral tey su ñëwee ñun ñi gën a woyof tey ci commune bi te fekk suñu yitte bariwul tey ñu ànd ak moom bungee ko ci kër yi nga xam ni fi la jàpp ñëw fasanteeg yéen ak kóllëre sàkku fi ñaan sàkkul fi président de la république ñaan. tey nag dañ fee ñëwoon ñun kuréel gi ëmb ndaw département bi doon nimmeeku kilifa diine yi ñu ànd ceeg nag ay ndaw yoo xam ne dañoo jóge ci département bi man Ndiayène Firax laa jógee ñii ñu jógee Ceneba suñ maam moo nga nale di doom ci xalif bi ñu ànd ak moom ñëw fekk si suñu. ndaw yi nekk ci commune bi Assane wax na ko léegi moom ak biraan ak euh, Ibou ñoom tam ñu fekk leen fi ànd ak ñoom ñëw fii euh, di la ziar di la yóbbante ziar sëñ bi di nuyu suñu xarit sëñ dem ni mu ko waxee léegi noonu la moom it euh, dañuy déggante rek mais yàlla def na ñu ngi joog a gisante tey moom it mu am tànk yoo xam ne la koy def ci parti bi muy tànki ñaw tànki boole ñëpp loolu aussi war nañ ko rafetlu parce que fii ci Thiès loolu moo ñu manqué ñuy ñaw ñuy defar loolu moo manqué part bi kon nag ñu ngi koy suivre moom tam euh, di ko ñaan rek mu continuer ci tànk yooyu parce que li def moom mooy jëmale part bi kanam li muy def aussi moom la président Macky Sall bëgg kon kan ñu ko ci sant bu baax di ko ci gërëm tànk yi nag tànk ziar la tànk sàkku ñaan la tànk fasante kóllëre la tanki aussi sakul ñaan jitu rew mi moy president de la république Macky Sall mi nga xamne aussi min na kër gi bu baax a baax a baax euh depuis so ba léegi ñi ngi ci tank yu melni ñi ngi jóge léegi ci xalif général de Tidiane suñu papa Cheikh Ahmed Tidiane Seck ci euh fofu nañ jóge wiñ fi fa jógee mën asan bala ñu demaat fenn nañ ñew ci kër gi euh, sakku ñaan ziaré fasante ak yow ngeen leuré di ñaan suñu borom nungul ñu loolu. Euh, lii xew di njàmbat na ci dëkk bi Assane wax na ko léegi. mooy élection yi ñu jëm. leeral na ko sax daanaka loolu moom kenn amatul loo ci teg. parce que ki nga xam ne moom ñuy liggéey le président de la république. moom bi mu nee bu faloo lay wàññi mandaam defu ko ci pression defu ko ci leneen. moom moo jàpp ne réew. mandat juróom-ñaari at. xëy na bari na ci. mu jàpp ne bu toogee war na ko mën a wàññi. mais nag réew moo gis. ci ay charte lay tëdd euh, ci droit lay tegu moom am na yéeneem parce que boo xoolee ba mu faloo ba léegi saa ñu ko laajee danaan man la ma fasante na ak askan wi dinaa ko def. ba tax na am na ñenn sax ñu nekkan ci parti bi dañ noon président cinq yooyu ñun d'accorduñ ci defal sept ans moom mu ne la ma wax nag askan wi dina ko def. ba tax na aussi ba mu àggee ci app ba mu bind parce que damay leeral ne bu fekk naru ko na wàññi mandaam maanaam texte bi nga xam ne moom la envoyé conseil constitutionnel du ca bindul article booba ne fës naa yéene wàññi sama mandat bi dox jële ko ci juróom-ñaari at andi ko ci juróomi at mais ba affaire ba àggee foofa dañ na ko am nga droit kat wàññi mandat bi juróom ko juróom-ñaari ko ci juróomi at mais yow mandat bi ñu la fal amoo droit wàññi ko parce que nag buñ dee waxante aussi li fi ne ku mën a wàññi mën a yokk bu fekkee moom am droit ñu fal ko juroom ñaari at mu wàññi ci ñaari at keneen bu ñëwee man nañ ko fal juróomi at mu ne la yokk yeneen ñaari at muy juróom-ñaari at damay wax ne boo demee tey amérique euh, binduñu fenn ci constitution amérique ne président mënta def ñetti mandat ñoom seen bopp parce que barack obama tey bu ko neexan bu mois de novembre jotee mu posé waat candidat constitution ba may na ko maanaam li ñuy wax tradition républicaine ñoom ñoo ko jombal seen bopp bien que constitution bi aayiwul ñetti mandat mais ñoom ñoo xalaat ne ñetti mandat ëpp na boo ko def ñaari mandat rek dangay dem bien vrai que ñu fenn constitution aaye na ko kon loolu la ñuy wax ci tradition républicaine loolu nag moo waral aussi président de la république tradition républicaine boobu mu respecté waat li nga xam ne la fa jógee ci ëttu dogalukaay bi parce que yoon woo gis aussi am dëkk boo gis am na aussi loo xam ne ni moo koy moo koy doxal euh, loolu nag yaakaar na ne ñun ñëpp dañ ko war a rafetlu parce que du ponk benn du du benn ponk boobu rek moo nekk ci euh, ci référendum bi am na yeneen fukki ponk ak ñeent. am na yeneen fukki ponk ak mais nit ñi ponk boobu rek nañuy jël proposition bi sax laay wax. parce que xëy na ñoom li leen itteel mooy élection am déwén. ñu xa yaakaar ne ba amee déwén dañuy gagné mais kee gagné moom suñu borom rek ku ko xam. parce que Macky Sall bi muy xëccoo 2012. ñu bëri dañoo yaakaar ne du moom du falu. mais suñu borom ñëw ci mbiram. kon li ci am solo rek moom mi ngi ci Assane wax na ko loo ki mooy liggéey pour askan wi liggéey pour doomu aadama yi ba seen condition de vie seen condition sociale mën a changer te loolu am naa yaakaar ne ñëpp teg nañ seen bët ci wàllu diine ji ak wépp fépp foo dem rek secteur boo dem rek mën ngaa laal ne jëlee na ko fii yóbbu ko fii kon nag ñun ñu am yaakaar ne même bu élection yi doon 2017 la sax mm. am nañ yaakaar ne suñu borom nañ may ndam mm. parce que liggéey na ci réew mi liggéey boo xam ne nii bu ndamañu élection am na yaakaar na lay gagné waaye nag charte réew mi moo ko tënk mm-hmm. constitution moo ko tënk loolu nag lay baax ñu leeral leen ko parce que yéen bu dëkk bi doon am néeg yéenay jën yi yéen koy yéen a kon nag bu coo amee lay baax ñu ñëw leeralal leen ko mm. parce que dañuy wax naan seytaane waxu dëgg waa yàkkanam xel kon nag loolu aussi ci tànk yi ñu fi indi la di sàkku ñaan nak ngeen ñaanal le président de la république ba li mu sumb te ñun ñëpp xam nañ ne njariñu askan wi rek la suñu borom defal ko ci ndam surtout ma nak fi ci Thiès surtout ma fi ci Thiès loolu mom nga ñoo ngi ñaan nga fasal ñuko parce que bu amé fepp ndam te amul ci Thiès aussi du neex ci ñun responsable ta Assane wax nako ko vraiment ñun ñi ngi ñaan yalla suñu borom defal ñu ñaan ci département Thiès ñu man ko gagné di len sante sante baax nak asan ak ñim àndal di ko yóbbante sant aussi ci Sira parce que li mu def aussi lu rafet la parce que bi mu ñëwee wax naa ko korok parce que ñun ndaw ñi rek nañ am képp koo xam ne ni yaa ngi jël di jàppale ndaw ñi amuñu ci kersa fu ñu toog lañ koy wax parce que boo ko defee ñun nga ko defal parce que jàpp nañ ne ñun ñoo ko war a def kon bu ko jëlee moom di ko def ma jot jox ñi ndaw ñi ay ay ay xëy fu ñu toog aussi dañu koy wax duñ fi am luñu lu ñuy nëbb kon ñu ngi lay yóbbantan euh, sant ci Sira Dia ci loolu nga action yi nga xam ne mu ngi koy def jëmale ko ci ndaw ñu di leen wutalam xëy te ñun aussi ñu gis ko parce que ñun ku def lu baax rek ñu la def nga lu baax boo jàddee yoon ñu la jàdd nga yoon waaw kon nag ñu la ko yóbbante sant bu baax a baax dama ko ko waxawoon aussi na ko aussi loolu muy def ci ndaw ñi ci commune bi na ko yaatal ci département bi parce que ay ndaw ngi ci département bi aussi bëggam xëy te suñ borom mayu leen ko kon nag ñu koy ñaan aussi bu ko mënee yaatal ci département bi jàppale ndaw ci département bi mu yaatal ko fa parce que ñëpp ci parti bi lañ bokk ñoom ñëpp ci parti bi lañ bokk te ñëpp président Macky Sall la lañuy liggéeyal kon daal sëñ bi pour tënk ñoo ngi yeesalaat suñu njëbbal euh, di sàkkuwaat ñaan ngeen ñaanal ñu ñaanal kilifa yi ñaanal njiitu réew mi ba li nga xam ne moom la ko réew mi yen suñ borom oyofal ko ko ba lim ci nam yépp lépp du ndamu réew mi rek suñ borom may ko mu àggale koog jàmm lii ñu jublu muy référendum bi le 20 mars suñ borom defal ñu ci ndam nit ñi dem wote ji wotel ko wiiw mu mën a toog daal di liggéey réew mi ba 2017. Mm. keneen ku yàlla fal rek ñu xam ne yàllaa ko fal. Mm. asalaamaaleykum wa rahmatullah. yow mii nga xam ne suñ may sa yàlla dafa dogal mu jiital la ci kanamu ndaw ñi xam nga ndaw moo ëpp solo ak mag ndax ndaw mooy nekk lépp looy séenu séenu ko ci ndaw ñi. ndax fekkee ne ay mag yi kese nga gis mbool mbooloo bu fekkee mag yi kese mbooloo moom am na fu mu yem waaye mbooloo moo xam ne ay ndaw kese la kooku kenn ku nekk xam na lu ñu te lu ñu jéem mën nañ koo motale kon loolu ñu ciy sant yàlla bu baax a baax di ñaanal yàlla nag yen bii nga yenu yal na la ko yàlla yenale ndax Umar nii ma ko waxe Cees ay buntu buntu la waaye bokk na tey ci bunt yi nga xam ni yàlla moo ko dogal fii benn benn la ci biiri bunt yi ndax fii mu ànd ak yéen won leen ko ngeen ànd ak moom wax di yàlla képp ku falu tey ci réew mi ak démb yegg si nga fi kon dañu ñaan yàlla di sant yàlla bu baax a baax ah sëñ Thiénaba nag di ko wàcc wàccuwaayam di ko nuyu ndax nit ki sa waajur su toogul nga toog sa waajur moo toog te xalifa bi lañ koy xoole ndax surtout nag gunge gi ma gunge ànd ak yéen ba fi ndax xam na ni kër gi ngeen ànd ak moom de kër ci ay këram la bokk loolu lañ ci sant yàlla bu baax a baax ah, li nga wax na président nañ koy ñaanal kooku ala kulli xaalin ñu ñaanal ko ndax nit ki su amee ci yow yëg-yëg bu tolloog suy wut dara waaxu ñëw ba ci yow ba yàlla defal ko li mu bëgg kooku su la nee ñaanal am yoon moo la am am yëg-yëg googu ma amoon ba waaxu ba ñëw ci ñun yëg-yëg googu moo fi nekk ba tey mosu fee jóg te nag soo waxee ne réew mi moo ko yitteel rawatina suñu dëkk bii di cees ah man de xam naa ci dara ndax xam naa président ku bugg dëkk bii di Thiès la su doon sagom lu mu am mu sedd ci waa Thiès su doon sagom tamit waa Cees lu ñu am jàppale ko lu ñu man defal ko ko ndax kat nit ki su la seddee soo ko waree sedd na nga ko ko sédd te ñun suñu cër ci yéen suñu cër ci moom mooy jëmm yi ñaan gi digle yi la am su ñëwee jëmm yi ñu gàttandu ko teeru ko waxtaan ak moom ñaan gi ñu wéet di ko ñaanal digle gi mooy digle suñu ñoon jàppale leen ko ñett yi lañu lañu nekk ak moom te sant yàlla la bu baax ndax wax na ma ci làmmiñam dëkk bi fonk na dëkk bi te bu ma koy waxkat fii ci jumaa ji la ma ko waxe bëgg na dëkk bi bëgg na jàppale ko ci dëkk ji dëkk bi kooku nag sant yàlla la bu baax a baax a ah, Siré nag mi nga wax Siré eh, wolof de mooy wax ndawalu guddi la Dah ku demone kéro biñ koy sargal wa dëkk bi yëpp daje fe. kenn ku nekk di nitu diine yor sa kaamil yor ñu jàng ba pare kenn ku nekk su waxee rek da ngay fogg ne la gën nekkal waaye kon siré siré ñëpp la ñu koy ñaanal yàlla yàlla gën koo dooleel gën koo jàppale ba li muy def ci jaam yi yàlla na ko gën a man yow ma yow may sa am nga sas ñoo ñëpp am nañu sas waaye sas bi gën a rëy mooy ko jiitu ndaw ñi ndax mag ñi am nañu soxla waaye ndaw ñee leen ëpp soxla nag ah ki xëy amul liggéey ki xëy war a tekki tekkiwul ki xëy war a def deful ki xëy war a man mënul ñoo ñëpp suñu yëkkatee kàddu gi muy benn ñu jox la yow maysa sa ah yal na la yàlla jàppale ah yal na la yàlla dooleel yal na la yàlla sàmm ba ñu topp sa ginnaaw ñëpp nekk benn nekk benn say yow itam yàlla jox la yaatal say mbir ba kenn ku nekk nga mën koo defal bëgg-bëggam ndax kat yombul waaye yàlla nag mën na lépp moom mooy def lépp yàlla na yàlla fay. ndaw ñi nga wax nag ànd ak si ànd bu rafet ndax ñii kat wax dëgg yàlla ah sant yàlla la ah ñu ànd bu rafet ah ànd bu rafet mooy lu borom di séddale jëme fii wala jëme fii yëkkateeg sa loxo nga def ko ni nga ko war a defee loolu ak kóol di fa la ba na ah yàlla na leen yàlla jàppale Umar nag yàlla dafa dogal dëkk bii di Cees li arab di wax hamzatul wasli mën naa mas mën nga koo mas uu ci kaw mën nga koo mas ci digg bi mën nga ko mas ci suuf boor boor bu nekk rek am na fa cër kër diine yow am na fa cër waaye fii nag nga xam ne fii la jànge ah fii nag moom mooy baasam ñun loolu ñu la koy xamal ah, di ñaan yàlla nag ndax sëriñ bi yàlla dafa dogal tey eh, dafa xëy Dakar ngir yi soxla waaye nag même su fi teewee toog tamit moom da koy delloo njaboot gi ndax kenn ku nekk comme mi ndaw kese soo gisee mën na waa ndaw ñi ñu ñëw fekkee ñoom tamit ñu xam eh, lii mu waral am na ñeneen ñaa ngi fii ci jumaa ji ñeneen ñaa ngi ci kër gu mag am na benn xew bu ñu am fee tamit ci Mbour 1 ñoom ñëw ña nga fa moo tax kon da ngaa fekk ñu tas te ñu xaw koo yéex a yëg parce que moom loolu fii da nga fekkum fees dell waaye nag lim baax na waaye nag euh, qualité ak quantité moo fi nekk ah, ñu ngi ñaan yàlla nag yàlla mi jàppale yàlla yàlla jàppale seen dikk bi ngeen dikk fii yàlla na ko yàlla def muy aj gu ñu nangu delloo gu yàlla def ko umra bu ñu nangu yaa xam nag loo bëggal sa bopp te ñi nga àndal bëggal la ko yàlla na ko yàlla def ndax wax dëgg yàlla kontaan nañu ndax wax nit ki soo ko fekkee da nga ko dégg bëgg ko jikko yu rafet la nga dégg ci moom soo ko déggee tamit nga am amoo ci moom bëgg-bëgg am na safaan bi dégg ci waaye balaa ngaa yegg si ah jikko yu rafet la dégg ci yow mooy awee ko ci eh, Umar Umar mi kon nag sant yàlla la ñu ñaan yàlla yàlla miy jàppale yal yàlla jàppale kon daal nga xam kër gaa ngi bërëb baa ngi ah, jumaa jaa ngi kër gu mag gaa ngi li fii nga boole ko ci say kër ndaw ñaa ngi tamit ñoom ñoom tamit nga boole ko ci sa say bi nga sa bi nga yenu nga yenu waal ànd ak ñoom ñu ngi ñaan yàlla miy jàppale yal na yàlla jàppale kon Alaaji Maysa yal yàlla jàppale kon ñu bokk def ñaan ah su doon suñu sago nag ngeen doon toog ba añ ba pare ah, ah waaye nag séeréer yi ah, ah, xañ nañ ci <laughs> ñu bokk def ñaan ñu jàng fatiha jàng ayatal kursi yu inna anzalnaahu ñu julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaan tànk yi ngeen dëkk yàlla na koy def aj gu ñu nangu dellu bi tamit yàlla na koy umra bu ñu nangu dëkk bi tamit yàlla na fi yàlla wàcce jàmm yi feeñ ci feeñ de feeñ yeneen dëkk yi fekk ndaw yëpp tukkewuñu te mu commencé feeñ yi àll lu ko feeñal mooy ñaanu mag ñi yal na gën a yàlla na gën a yaatu kii nga xam ne moom la yàlla jiital te yàllaa ko jiital yàlla nag su jiitalee jiital na ah ñu ngi koy ñaan yéen bii mu yenu yàlla na ko yàlla jàppale lii ñu jublu muy référendum bi yàlla ci yàlla na ko ci yàlla defal ndam ndax ndamam mooy suñu ndam siyaar ak sàkku ñaan ci bala bàyyi ko ci sëñ Ahmed Tidiane ba mu fa jógee doomu sëriñ bi sëñ Maamoor ànd ak moom muy xaritam ñii ñenn ñi cene ba la ñu jóge ñenn bi ñu ngi jóge ci yeneen gox yi ci biir département bi mu ni mu ni woon tey day ñëw siyaar si la sàkku ñaan fasante yow ak yow kóllëre sëñ bi ñoo ngi lay ziar bu baax di li nuyu di jégalu nag ci xaaraay bu yàgg bi ak yitte yi nga war a doxi parce que xam nañ yéen seen yitte bëriwut di la yóbbante nuyoo ci kilifa gi sëñ cheikh bombali yàlla def na moom mi suñ wëllëre barki fan yee rek fekk naa ko ba madina doon ko ziar di la yóbbante yoon tamit sëñ ibra mbàkke moom it daa ñoo ñoo dëkk ñoo dëkk eh, di sant yàlla bu baax nag biñ ñu yàlla defee ñu teew ci barab bi parce que suñ borom moom sàkk na barab yoo xam ne nii ku yàlla te yéwénal say mbir doo fa teew comme ni ko asanaan wax léegi comme yàlla wamat nañ ba ñëw fii daal am nañ yaakaar ne suñu xel mën na gën a dal ci barke suñ bàkki màddina ak suñ fàllu ah di sant nag ñi nga xam ne ñoom laa àndal mooy ndaw ñi jóge ci département bi yépp te suñ maam moor mi di kilifal jataay bi moom it biñ demee ziar xalif général ba pare dafa ànd ak ñun ci délégation bi boobu ba léegi mi ngi ànd ak ñun ñu ngi ko ci sant bu baax a baax a baax a baax ci maanaam yëg gi ak oyof gi di sant ñu jóge ci gox yépp di sant aussi euh, sama mbokk taale bi mandal asan ibbu ak euh, biran nga xam ne ñoom it suñu wëlëre nañ nekk ci parti bi depuis 2009 ba léegi di ànd liggéey yépp ñu bokk ko may lay seereel ci ñoom it jikko ju rafet parce que li tax and bi sax and bi dëggu moy jikko jo jikko nañ andé lolou aussi buma ñëwé ci sa kanam yo xamna yaay seen wasila warna ko seeree ne loolu daal laa xam ci ñom té buma ma juroom benn at a ni nii ñuy ànd duñ tok semaine bo xamni ni gisantu wala ñu wuñ ak talibé nañ xam ci ñom jikko ju rafet nañ xam ci mom politique bi tamit taxut ñu changer jikko parce que la fa am lu leen bakké mais ñoom biñ ci duggee ba léegi tamit ci ku dañ leen xamé won ba nekkee ci opposition bi mom lañ leen xamé ku def lu baax ñu wax ku def lu nonu tamit ñu am fitu taxaw na ni rek leneen nit ñi mën waxit ñepp d'accord nañ na dal parce que ko xamné ni nii nga tok fukki at ak ñent sakku na légui lamay tok fukki at ak ngor nim nexé kon koku bo né bëgg na réew mi niñ mën ko gëm kon nak ñi ngi ñaan nga ñaanal ko ba yen bi oyof ci mom lu baax lim yéen réew mi suñ borom mën ko koo defal. li sëñ bi wax rek ah, kàddoom da mën a leer li mu war a leeree waaye li mu wax daal nee na mu ngi leen di sant ci ñëw gi te di leen fas yéene teel kóllëre gi bu baax a baax a baax di leen xamal ni yéen ak moom yéen a bokk liggéey bi ndax su taxawalee daara Cees taxawal ko fii ci Touba Jobaas noonu it la boo taxawee ca Mbuur taxawalee ko noon it ca ñanin lépp nee na ngir tàggat doomu aadama rekk la ak tàggat ay ndaw ñu sax ci ak njub ak jaamu yàlla ak nangoo liggéey te yaakaar naa ndaw mi ndaw ñi it ñoo ñëpp ci loolu lañu jublu kon nee na moom ak yéen yéen a bokk benn jubluwaay kon mu ngi leen di sant ci ñew gi ngeen fi ñew mu wax ni ñun ci kër gi lañu bok kep kuñ fi indi dina ko dina ko japp ngir yalla ak jëmmi señ tuwa ak suñu jëmm yu neew solo yi kon kaddu yu neew bari mom sant na ta santam xéewal la ñaan la xolam bu sedd xéewal la ñaan la kon lépp ñu rafet njort te fu ñu toll di wax ni alhamdulilahi rabbil alamin boole kook amin xam ni li ñu bëgg sunu borom dinañ ci defal lu kawe sunu njort insha allahu rabbi moom mii nag sëriñ Mbàkke màddina mooy waajuram sëriñ Mbàkke màddina Cheikh Moon Moussa Mbàkke Cheikh Moon Moussa Mbàkke sëriñ Touba waajuram yu jigéen soxna maam Bousso Mbàkke soxna maam Bousso Mbàkke waa waajuram mooy sëriñ fàllu sëriñ fàllu waajuram mooy sëriñ Touba ñu duppee ko Cheikh Mouhamadou Lamine Baara moom sëñ Touba kon léppam ci sëñ Touba la dellu kon su suñu waxee kàddu yi sunu xel war naa dal sunu fit gën war naa gën a yokk ñu xam ni fa ñu jëm incha allahu rabbi dinañ fa yegg kon ñu tàllal ñu def ñaan beneen yoon incha allah mm-hmm.